dal leen ak jàmm mbokk internet yi coow lu rëy am na ca école de football bu Dakar Sacré Cœur ab yàqankata maanaam délinquance sexuelle ab pédophile bu mag nekk ab tubaab di wuyoo ci turu Olivier Sylvain moom la ñu teg loxo ci boobule école ndax la mu doon séq ak xale yi Olivier Sylvain ab tubaab la am ay cosaanu français ak malgache nekk itam foofule ca école de football bu Sacré Cœur ki nga xamante ne moom mooy jiite cellule de performance ba waaye moom tubaab boobule di Olivier Sylvain moom de ab saay-saay bu mag la ndax ab pédophile la ànd ak Sylla itam nekk góor jigéen bu mag ndax ay xale yu ndaw la ko doon séqal dëkkee ci di leen yàpp bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu joto moom tubaab boobulee di Olivier Sylvain yàgg naa def lu ni mel daanaka sax ëpp na at laata muy feeñ lu ëpp ci xale yi nga xamante ne ñoom la doon def jëf joojule dañu doon a wax li nga xamante ne moom la leen doon def ba tax ñu ko doon méttat lu ci seen biir noppi waale ko mu sonal leen lool daanaka moom def ko tu ñombe boobulee di Olivier Sylvain mbonam mi da ko xirtal ci muy sàkku ay xale yu ci at diggante fukk ak ñett ba fukk ak juróom muy bànneexu ci ñoom lii leen nekk lu doy waar jamono ji ci lu ñu jàpp gumba juróom-ñaar ci xale yooyu leen ñoo jot wax li nga xamante ne moom la tubaab boobu lee di Olivier Sylvain doon séq ak ñoom ñenn ci ñoom daanaka bi ñuy nettali mbir mi sax dañ doon jooy di nettali jëf yu doy waar yi nga xamante ne moom la leen tubaab boobu lee doon def ak defloo dem nañ sax bay wax ne moom tubaab boobu lee di Olivier Sylvain daf doon sex ci seen awra yi ngir xamle fu mu daan jaar ak ñoom ñenn ñi di wax ne daf leen doon invité këram ngir wax leen ne nañ ñëw mu defal leen ay massage ci boobule massage ca lay jaar di leen làmbatoo ko def ay mbir yu doy waar bu ñu sukkandikoo ba tey ci suñuy xibaar li ko feeñal di directeur ba nga xamante ne moom moo yore boobule école football bu Dakar sacré moom président boobule moom moo ko boole ca police ngir ñu mën a def ak enquête ginnaaw ba nga xamee ne kenn ci xale yi jot na ñëw ci moom daal di koy nettali dëgg-dëgg li nga xamante ne moom moo xew foofule ca école ba boobule enquête moom moo jur ñu xam ne du woon kenn kooku kese la ko def daanaka def na ko ay xale yu bari ginnaaw yooyu lay firnde ci la ko brigade de protection des mineurs bu nekk ca Dakar di ñëw jëlsi ko yóbbu ko nuga seen tëj ràpp yàlla bu mu génn lu mbir mi jeexul ndax bile tubaab mbonam ak mbonteem daanaka yàq na derub école boobule di école football bu mag te ñu ràññee ko foofulee ca Dakar Sacré Cœur ana fan la wanent di mujjee ki gëtëm ndax ñi mu ko def ñëpp dinañu mujjee wax ana yan daan la yoon nar a tekk kii lee di Olivier Sylvain ak ana fan la école boobule di mujjee lu ci mënti am daan ci ñëwaat ak yéen ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf